kàddu yi ñu jël jubluwun ci bëgg kàddu jubluwun ci soxloo wax ci mbooloo doomu aadama dafa bëgg ku ko yëg ku ko yëg mu war la delloo ak yëg man awma lu du sama bàyyi Cheikh maxtar Makhtar Mbacke ibnu Cheikh Balla ibnu maam Cerno Birahim bis yu bari jaar na fi ñu bari def nan ko bi mu noppalu ak léegi te mu doon liggéeyal sëñ Touba waaye ñu bari tudd ko seeni bis kon ku ko tudd sa bis ñu di ko fàttaliku loolu dana ma tax a jóg bu ma ci mënee wax danaa ca wax lii moo tax ma jël kàddu waaye bëgg wax taxu maa jël kàddu am mbégte yi tamit ci ndaw yi sëriñ Touba yi nekk ndakaaru ndax léegi woote baal ak woote choléra ak woote caaxaan amu fi ñiy woote ñëpp léegi ci sëñ tubaa lañ koy jooyal donte mën naa dem ba ci digg bu mu raxit sëñ tubaa lañ koy tudde kon la ca bu yàggee mën naa soppi ko ba set wicc mu des sëriñ tubaay kese jàngi géwél nag li ci sama mbokk mi doon wax léegi ku ci ñëw moom joxalante du ci mën a ñàkk ndax mooy xorom si waaye bu mu tax nag ñu fàtte sëriñ tubaa mi nga xam ne kuy woote moo tax ngay woote cant gi dama koy waajur yi ma toogal ci kaw di ko ko jéggulu ñoom ñaar ñëpp samay waajur lan barab boo fa amee waajur am fa mag ju mel ni sëñ bas mii am fa jigéen yii toog di samay mag wala ñuy samay rakk ñëpp ma bokk ak ñoom baay am na ci loo xam ne faw nga feeñal ci sa yéene di sant sëñ bas bu baax ci téye gi nga téye Seydou di sant sama mbokk yi bu baax sañ Baara Mamour moomu sëñ Mamour Dindey Cheikh Abdou Khoudous sëñ Jili Pof di ak sëñ Mamour mii nga xam ne maa moom suñ ñaari bàyyi kenn la di sant ñëbootu Sëñ Tuubaa gi fi nekk yëpp di sant Seex Aadama Jóob mii tàgge boo gis am na jàppal am na jàppal diw te bu bu ma fi doon seet magum taalib bi maam Cerno ci moom mi lay jàpp kon ñu ngi lay sant ci teewaay bi Seydou nag dafa am lu nu séq li nu séq mooy jàmm akuk yëg mu gore lool bëgg ab sëriñam lool bëgg lu baax lool ñu koy jox kàddu ci biir mbooloo du yàq ay waxam kàddu biir mbooloo li koy yàq mooy leb la ci bor wala nga fay ko ci doon nitug démb ñu tuddee la géwél wala koy wax ci mbooloo ci ci ci nit ñi am na solo lool waaye fexe ba jaxasoog ñëpp ba saa yoo jëlee kàddu kenn du ci gis boppam lu am solo la te du dana ko faral di def bu doon wërsëg ak lu nuy joxe du tudd sëñ Modou Mokhtar ci fàttali gii ku ma ko fàttali waaye bëgg ab sëriñam xam kóllëre gu dox seen diggante moo tax mu def ko waaye Seydou na la leer ne lépp loo xam ne bëgg nga ko sama borom dana la ko defal tey jii ak ëllëg ndax képp koo xam ne bëgg nga ki la Sëriñ booleel yàlla moo lay fayal boppam te yàlla jeexalu dara te itam yéen ñii bokk milieu bi bokk ndakaaru nañ def ni yeneen kër yi def yeneen kër yi yi nin def mooy danoo am complicité képp koo xam ne yëkkati nga dara te bokk ci ñoom day mel ni yaay àddina ñëpp dañ ci jàpp ñun nag suñ milieu bii nag milieu bu doy waar la saa yoo yëkkatee dara dañ naan day dóor am kuy gor say tànk kenn du ci jàpp te war ngeen a xam ne Serigne Touba day liggéey na ci réew mi loo xam ne lépp lu ci murit bëgg bu amee tënk-tënk say mbokk la koy teg waaye du sëriñ bi nga xam ne moo la jox moo liggéeyal yàlla tey ak ëllëg maa ngi jéggulu euh, maa ngi nuyu sama waa kër baay ju Mbàkke yu fay ndax waa waajuru mu jigéen ak sama maam soxna ja ñoo nekkoon ca Grand Dakar moom it muy sama wël réew bàyyi tey ji muy jëwriñ sëñ Touba ñi ngi koy ñaanal di ko sant di sant sama wëllëri wii toog sëñ Fallu kon ñi ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ngay taxaw ci njabootu sëñ Touba bi di sant njaboot gi nga xam ne Amadou Ba da ko fee yebal ci réew mi la dëkk ay sëriñ la ñu wolof njaay nee na picc du gis kuy taxani topp kuy du gis kuy bojj di topp kuy taxani mënuñoo nekk ci bi de ay diine am ñu nekk ci dëkk bi de ay kilifa diine maam jun am mu saaga ko mbokk mu baax mun am mu saaga ko tarixa mun am mu xeet ko ku wax ñu fàttaliku la sa démb ñu wëlbatiku di am confiance ci kooku Amadou Ba nee ko bu amut réew mi ci doxinam la waaye réew mi moom kenn bëggu fi saay-saay nit ñi ñëpp nag kenn ku nekk ma nga toog këram di ko déglu ku ko gis mu wax la lu jar nga ànd ak moom da ànd ak moom ku ko gisut nag bu bu ko amut moo ko xañ boppam réew mi nit ñu yiw rekk fi nekk waaye nag saatu doot boppam nit ku yiw mënta wëri politicien te ñun sëriñ si politicien danoo gaaw a wor boo fekkee politicien di ko jàppale ngir defar réew mi moom du ko jàppee noonu bu demee ba toog day jàpp ne yow ku doon lijjanti dara rek nga. lam lay njëkk wax mooy jàppal ci der bi ak téere bi ndax sa maam lii la amoon te pourtant ba muy wër yaag moom àndoon wër sëñ Basiru Xaadim Awa bi ba muy 2012 bi muy wax Macky sàllaa mooy gagné réew mi booba ñu nga kër ma Masseck Ndiaye booba ñu bari ànduñu woon nag moom waaye benn nomination wala genn fal gu mu am ci état xamu leen ko. te mën naa am léeg mu wax ñu ne ko sëñ bi jàppal ci li sa maam moom ndax mën mii dama dal na ma kon doxin woowu nañ ko soppi ci réew mi gone mbàkki mbàkki yi léegi diplôme yëpp lan amee boo demee daaru muti ministre buñ fa fal ku la mën a jàngal ci dëkk ba tey sëtub Cerno nga fa boo demee Touba noonu te as gor la ñuy dénk teraanga ndax boo dénkee as gor teraanga mu terloo ko tereel ci bokkam Macky Sall mi li muy def ci réew mi yëpp li ko ko li li tax coow li bari ci réew mi mooy mboolem ñi mu teral dandut ay gor lum leen jox ci teraanga ñu fuuyoo ko am na ci ñoo xam ne dañuy jël seeni seeni direction maccaat ma ci am sax dañuy kër yam entreprise boo xam ne mooy wëtu mbëccu maccaat ko duñ jox kenn dara lim def ci réew mi benn président mosu ko ko def waaye nit ñu bon ñooñu mu àndal moo tax kenn gërëmu ko te coono bu ne am na ko ci réew mi gone yi sonn nañ nit ñi sonn nañ te dara la ko lu dul la agsi ci ñam war a agsi jàllale ko ci population bi waaye lu lu baax lu ne def na ko ci réew mi kon Amadou Ba ndëgg sërëx yooyu na ko moytu na moytu tamit ñi koy wutali noonu ña moytu ñu koy wax naan gone mbàkk mbàkk yi dañuy dóor ñun suñuy dóor buñ dóoree dana dal ndax suñ Tuubaa lim dóor dal na kon waaw jeex na takk ndax milliards yi ci réew mi ñun lekk gun ci man maa ngi nii bu 2012 ba léegi lu baax lu ma xam maa ngi koy wax dawalu mu 4-4 gañu mu marché kon bu ne dañuy dóor ñoom ñoo ñu njëkk dóor ndax wax dëgg yàlla topp nañ ci ñoom ba sonn kon Amadou Ba bu dee nit ku baax ay wëlëram nekk fi na moytu ndëgg sërëx yooyu nan delloo suñ bopp nag ci sëriñ Touba te delloo suñ bopp ci jaamu yàlla te moytu te te moytu ak càggante wajtan ni sëriñ Touba ci jom ci ngor ci njullite la taxaw lii mu taxaw lun mën a def ak lun mën a jàpp na ni fàttaliku diine jooju ak ngor googu ak jullite googu maa ngi sant communication communicateur traditionnel yëpp euh, sëñ Cheikh Oumy ñi ngi lay gis nañ ne lu xew ndakaaru nu ci gone tuuti tuuti ak nu mën nga yor sa tànk yu sell yi ñëw ci moom xam sëñ tubaa tax saa dara ñëpp jàpp sëñ tubaa yëpp fenn fa nekk lool ci moom dib sëtam wala ngay njabootam wala ngay doomam sa doxin wi doo lay dox kon yàlla na nga gudd fan yàlla na nga mucc maa ngi jéggul kàddu yi sama sëñ bas sama mag yow sama waajur ak sa waajur ca kër sëñ Basiiru ca njaareem jataay boo toog waruma faa jël kaddu waruma faa wax dara ndax yaay sama kilifa yaay sama mag te assumé naa ko sëñ Maxtaar daa jàpp sama loxo yóbbu moom ba Kébémer ne ma kii mooy sëñ Saliou doomi sëñ Xaadim Awa Ba farsalanteeg moom kóllëre yow it ngay jàmbaar am jom ci ndakaaru képp ku tudd sëñ Tuubaa wala muy def surne ci ndakaaroo sam xel dana dem ci yow ndax fa nga ko yóbbu ak fa ko teg ñi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla maamun loo sama xarit sant di la gërëm yow dangaa ngaa gore nekk soxna su baax ñu bare bari dañuy wax soxna Bali mbooloo di fa teew ñu yaakaar ne ku fa teew da koy dimbali. giñ naa ci sëñ Tuubaa nit toog fa mu teg ko ndab loo xam ne indiwu ko fa téeméeri nit yu fa ñëw juróom-ñaar fukk ya dana leen dij ndab lu fa indi sa woowu te lépp da koy teral Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo baax moo gore te liggéeyal sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. sëñ Cheikh seere leeg ne la colonel Mouhamadou Bamba Sall maa ngi koy sant maa ngi di sant bu baax colonel Abdourahman Ba di sant baax la colonel Lamine Sarr waaye di la seereel ne sëñ Cheikh maa ngi sant bu baax sa soxna su baax sii muy soxna Aji fay jàmbaar joo gis muy dox jàmbaar jigéen mu ci ginnaawam di ko liggéeyal ku xool Cheikh Mamadul Muntaqa soxna Baali Muntaqa ku xool alaaji Serigne Cheikh Um soxna aji fay mu baax mii soxna aji jërëjëf fay yaa baax yaa gore jàpp nga ma waaye jàppale nga ma bëgg nga ma lool waaye taxaw nga ma lool sëñ Cheikh Ibou Fall ba ko transité ngi nii mu ànd ak François léegi la yegsi ci li ma doon seere ci moom Ibou ku goree ngi nii moomu njëkk a may oto ci àdduna wax naa ko léegi yaa ma njëkk a may rafkat essence bu gris ñaari nag nga yeew fii boole kook enveloppe yow as gor nga suñ fallu ngay waaje suñ lu ngay wàlle jërëjëf Fall ma wax ne maamun maa ngi wàcc samay kàddu waaye sëñ Fallou Galass Lo mii buur daal yi balaa ngaa jël sëñ Bas sëñ Cheikh bi mooy parrain bi waaye bi ma waxee ne sëñ Fallou yow laa def pare bi dafa woo Mamoun loo woo Lamine Seck ne Seydou jox naa la nangam ci ay millions nangam ci ay millions mu ne ma dinaa la jox ñaari nag ndax at mu ne ñaari nag yi ñëw nga tuddee ma ko nga ñàkk ma ko tuddee dinaa la jox at mu ne ñaari nag garaam bu bii ma sol boo gisee subaak léegi summiwuma ko te garaam bu yaa ngi ci biir tegle moom mii laa bëgg a woon ni mbubb mi ma jox moom rek laay sol ci bis bi tey mu jëndal ma ay dàll doyul yemu ci mu ne naa la dimbali ba nga xam ne dimbali naa la mu jox ma ay njaq ay butéel la ma jox 10 litres barki Serigne Touba Mbacke ma yeb sama oto ma dem lu mat fukki fan mu woowaat ma mu ñëw bureau mu ne ma Seydou ma ne ko Mbacke butéel bu mujj bii ma lay jox sama alalu bopp la waaye dama la koy joxaat barki Serigne Touba Mbacke xam nga loolu doy na sëkk mu jël ma yóbbu ma ci premier ministre Amadou baax Petit Palais mu jël ma yóbbuma ci Samuel Sarr mii xaadim indi moom moo ma yóbbu bureau am bureau kii amu fa sant interdit ñu bari ñoo ngi dégg Samuel saar waaye pour nga gis ko dugg bureau am barke Seexul Xaadim yombut mu jël ma yóbbuma ci Lamine kamara kenn ku ci ne moo na laan jox ko nangam sëñ bi loolu teraanga da koo gën a rëy. kon ma seeral na sëñ Cheikh Fallou Golass Lo mii sama xarit la sëñ Cheikh kii am nañu 22 ans tey bi may takk sama soxna seedi ndey ka ndakaaru gépp kenn laa ci àndal muy Fallou mii sëñ Fallou laa àndal ci otoom booba moom moo am oto amaguma oto mu dugal ma ci ne ma nañ dem li ma yor ci xaalis muy million yi su jeexee nañ génn baas bi ñippi ndax nit day sagal boppam ñu dem mu génne million yi tasaare ko ci baas bi mu jeex ak Abdou Ndiaye course mii ñu pare dugaat ci oto bi ñibbisi kon xanaa mu ngi bëgg a yàgg ba yàlla dogal ci lim dogal ci moom sëriñ Maxtaar Naar loo gaynde kokki ne ko yàlla mooy def lu ko soob yàlla moo def te xamal ma sëñ Fallu demal nga ñaan koo ñaanam ajoom fajo barki sëriñ Tuubaa Mbàkke demal nga ñaan koo ñaanal aajom faju maa la jàngal alxuraan ba nga mokkal waaye lépp loo doon liggéey bàyyi ko nga dem ñaan mu ne ko lu may ñaane mu ne ko demal nga ñaan loo ñaan yàlla def ko sëriñ maxtaar naar loo ca kokki nga caméra daa doy waat moo ko wax ci jëmm ji kon sëñ Cheikh maa ngi lay seere di ko seeral sama yaay di ko seeral samay soxna ak sama mbokk di ko seeral mbokki taalibe yi fi nekk yépp sant naa sëñ fallu Gallas Lo gayndeel buur daal di gaynde kokki ndax waxtu wi amul jot daa tëj bureau daa nekk ci majjaalu kokki muy yelwaanu kokki day yelwaanal kokki te le 24 décembre la barki démb sëñ aboomu sëñ Fallou ay millions la takk jox ko ko ne ko defal ma ko ci yelwaan wi te mooy sëriñam sëñ Fallou lantinoor la sëñ Bas mi wax na ko daaw sëñ Fallou daa jaay këram def ko ci daaray kokki ci yelwaan wi yóbbu 200 million xale bu toll nii âge bu toll nii dajale 200 million di ko jox daaray alquran barke sëriñ Touba Mbacke ki jàmbaar la ah man nee ko mënuma ko léeg-léeg ma ne ko waaye yow sëñ Fallou da dof wala lu la dal ceeb bii ngay jël diwlin bi ak millions yi lu wax nga ne kokki kokki bal li ngay def mu ne ma. boo bëggee suñu diggante jeex rek bàyyi baag kokki waaye kii lu mu am kokki la ko jox 200 millions daaw la yóbbu te ren nee na ma li ma bëgg yóbbu da koo fonk kon nañ ma ko ñaanalal jërëjëf nee na ñoo ngi seeral sëñ Bas sëriñ maam Cheikh Mbacke AES di sa rakk barki démb bis sëñ Abdou Khoudous daa waxoon fàllu gaas loo dinaa la jox téeméeri junni sëñ maam Cheikh jox na ko téeméeri junni jox na ko fàllu lantinoor rek sëñ bas mi moo ko njëkk jox million ci daara ji keroog ngént sëñ xuddoos la ko ne màjjal kokki ngay def di ko yelwaanal man duma la jox CFA daara euro la yoyoo euro laa fi am jox naa la un million d'euro mbakki kon sëñ Modou Mamoun kàddu gaa ngi nii mbooloo mi nañ déglu tuuti rek ndax sama kilifa yi teew na Abu Bakri lii ak Chérif mii dañuy sama sëriñ di samay xarit at mu ne nii lañuy def di ñëw ci bis bi bu jubee ñu bàyyi seen lépp jóge fuuta indi seeni siwo jox ma ne ma bis bi ni nga ko bëggee rekk lay abe bu aboubacry chérif on jii ñalongo noon way on jii jamma ono way mi weltima allah weltima ceerno mamoun sant naa bu baax sama yaayu bopp soxna baali muntaxaa du ma jóg di ko wax de soxna baali sagal na ma waaye teral na ma barki démb rek dangeen ngeen maa woo sëñ bas barki démb soxna baali dan maa woo ñu ne ma soo jógee ci bis bi samedi alxamis dangay dem màkka umra ji xam nga ne loolu yéeme na de samedi tey ñu ne ma alxamis boo jógee fii dangay dem umra ji màkka loolu dara gënu koo rëy te ki ko waral soxna baali mu wàkki muntaxaa rekk la soxna baali sagal na ma waaye teral na ma jëwriñ bii mënu booleel muy sëriñ Modou Mamoun loo yàqu ci dara bu ñuy dem par yi dama naan an sa passeport rek dagal ma première classe ànd ak man soxna Bally di yëkkati ay millions di ñu jox ñun namatuñu dara ndax soxna Bally ñemeetuñu dem fu bari ndax soxna Bally waaye ñemeetuñoo def lu bari ndax soxna Bally soxna Bally teral nanu waaye sagal nanu kon noo koy sant noo koy gërëm benn kàddu rek ma wàcce muy ajar soxna Momi kebe sama yaay ju baax la ajar soxna moom i kebe sama yaay ju baax la sëñ Bas daf maa jot téléphone waxtaan ak man di jigéen ju yàlla baaxal jigéen ju yiw waaye jigéen ju bëgg lu baax mbaala asta bitaaram joor ajar soxna moom i kebe ne ma Seydou ma ne ko Mbacke mu ne maa la bëgg ngir sëriñ Basiiru mu sëñ Fallu ni nga ko def bëggeewu ma la dara sëñ Bas képp a tax ma bëgg la ndax ni nga ko def man na ku ma bëgg ngir sëñ Bas ma bëgg la ngir sëñ tubaa moom it ni mu def sëñ tubaa ak Seex Saaliw moo tax moom ma bëgg ko jàpp maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm sëñ Moodu Maamu Loo koñ bii ñu dëkk waa koñ bi yëpp maa ngi leen di sant sëñ Bas koñ bi awma seen fay ñoom ñëpp dañoo jël ay otes ne ma yow sa bis ñun ñooy volentewu dugg ci waañ bi suba ba tey ñoo ngi togg di yekk di jox gan yi ubbi seeni kër yëpp ne ma bis bii ñun suñu bis la bisu quartier bi la kon maa ngi lay seeral ne waa koñ bi bal leen ma àq yéen ñëpp waaye maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ba ci imaamu jàkka ji ak waa jàkka ji jumaa ji dañ ma ne ubbil nañ la bunt yëpp ba saal bi nga xam ne soxna yi moom la ñuy jullee dañ ma ubbil ne ma dal fi gan yëpp waañ bépp ñu togg jox ma ndox jox ma lépp kon maa ngi koy sant maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal ci barkeb Sëriñ Fallu saa boroom defal leen tawféex waa koñ bi ak gërëm leen di gërëm bu baax sama soxna yi ma yàlla booleel waxoon naa ko soxna coro mention spéciale yow coro caam laa wax mention spéciale ci bis bii ndax fii laa koy defee sa kër waaye tayyiwoo sonnoo bis bu ne yaa ngi daw ngir lu ko jagal maa ngi lay sant bu baax a baax may sant bu baax sëñ Bas sama soxna see nga xam ne mooy ndeyka noppal na ma moom it lu bare bare mooy doomi sëñ Modou Fall ka bu loolu xuddoos moo koy wax waaye jërëjëf Bakke xam naa xeer yi waaye di sant bu baax soxna maam jaara sama aawo bu teg li jubee rek jiitoo baax maam jaara sonn lu ma ci dara noppal na ma te tegle bi nag bu jiitu bi rek la moo jiitu ci kër gi wuuf leen wuuf sama njaboot taxawu sama yaay lool ay jàpp sama yaay ndax maam jaara sëñ bas sama baay ba muy dund ku fonkoon maam jaara mee la maam jaara dafa jóge Côte d'Ivoire déggul wolof ma takkee ko Côte d'Ivoire waaye sama baay lu mu bëgg dana ana maam jaara li ñu war a wax lépp Seydou wax nga ko waaye ni nga def nag ni la ku woote bis ba ñëpp wuyu si la ñi la teral ñëpp war nga leen a sant waaye Serigne Bass Seydou moom kenn la bëgg ci àdduna laaj ma kan la Alaaji Mbàkke Fay kookoo ko jaral ak Seex du Bamba ndax Seydou doonu tàgg ko su bàggoon gu dégg bëccëg Seydou Alaaji da koo jaral xeex jaral ko xe kilifa boo koy fréquenté da ngay fexe ba di ko yokkal ay soppe Seydou bu la déggee nga wax ci alaaj da koy xuloog yow bàyyi la ba loolu jeex mu seeti la ba sa kër ne la yow mbàkk yi koo comprendre waaye bis boo fa añee ji benn yoon ne ko bëgg kilifa ko ko jege noonu nga koy defal ma ko waxar kenn ko defaat ci ascenseur bi xalifa sëñ Tuubaa yéeg di julli ji su lay jaañu ko def keneen dootul am joxe un milliard diggante tisbaar ak tàkkusaan mbàkk yu fay ku ko def ci ginnaaw nga koy defaat soxna Xadisa Njaay mii sëriñ Bas nee na sant di gërëm ndax ci ay taxawaay yoo xam ne am nga ko ci moom ci yoo xam ne lépp na ñu war koo lijjanti nga lijjanti ko ngir jëmmi sëriñ Baara ak alaaji Baara sant na la gërëm na la soxna maam Mbar mii sëñ Seexu mi nee na mi ngi lay siyaare ndax yaay bàyyam fii ci baas bi ni jotaay bi tëddee te muy jigéen a tax mën ta jéggi waaye mi ngi lay nuyu Seydou nag li ma ko ne boo tëddal di nelaw sa yàlla dina la teral ndax sëriñ ba Basiiru Mbàkke mu sëriñ Fall góor yàlla boobu Seydou da koo gëm-gëm gu wér ak siddoo ko fil mahabbati cheikh abab sumam si àll amri xaytul warat wa tarku lixtiraat mutlaxan mbooloo bi baatin rëy fi maara wa ma aw salabul xiyaar li ko ni sanni bi laay inkaar yi Seydou loolu da koo jëf ci sëñ Bass mu sëñ Fallu Seydou benn bëgg-bëgg la muy Serigne Bass te sëñ Bass mu sëñ Fallu nag ku ko xëyee gontee ko doo doon deuxième mu kenn Serigne Cheikh mi ma yóbbu ci moom maag sama Serigne ne ko yéene naa la waaye li ma la yéene kan dem ma yóbbu boo xam ni sama yéene dana lam yow dana ne ko fa amee borom tubaa Touba Mérina borom Touba Afe di jàmbaar bëgg Seydou loolu nag taxawu ko jàppale ko ci biir ak ci biti Seydou lu mu am ak lu mu mel rek Cheikh Mamadou waat koog mii Serigne Cheikh def Seydou noo xam ne ab taalibe mënu ko weesu ak sëriñam Mbàkke kenn amul sa pay mii daana la sant ci Seydou Fallou Lo mi dana la sant Seydou képp ku Seydou am dana la sant Seydou ndax bokk nuy maas bokk nuy kalaas te yow position bi nga nekk sëñ Tuubaa fi ne nii ni sa buntul yi di fa Tuubaa kon yéen a bunt bi kon yéen wër leen sax di wax noonu nun ne ngeen a war di yable waaye bu ngeen wàccee seen bopp nag berndee lu seen jëmm yi ba ngeen ba ñuy man di wax ngeen di wax yow yow yaa taxaw yaa ko jàpp yaa ko jàppale baas boo taxawoon xool rek ñaan bàyyi doom yi dafay dëkk waaye nii nga def at mu koy ànd ak moom ba mu jeex dëkk kon yow Mbàkke kenn amul sa pay naka noonu mii moom it sa diggante diggante rek la muy démb tey door a ñëw Serigne Sidi Mbàkke mu Serigne Modou Muxtaar kàddu yi nga yëkkati rafet na am na solo nit nag lim bëgg moom ci mbooloo la koy ñaan man moom la ma waxoon du seen bas wax samay engagement bopp mu neex ak say engagement man li may ñaan man la engagé man kenn ku ne nag ak sa ñaan ak ka nga bëgg mu gañe sama carte daal maa ko moom citoyen laa sénégalais laa loolu nag man la engage ñaan nag laa man maa ngi koy ñaan leneen li ci des damay ñëw ci sëñ ni Fallou Lo mii door a ñëw ci Gaynde Baara yow nit ku am ko kóllëre nga as gor nga ab jullit nga te ab murit nga ndax fi nga génnee ci kokki ku fa génnee mokkal alxuraan mu ne ci sab dënn ndax kokki moom duunu duun duun la binduloo waaye li ñu lay def loo mooy quatre heures du matin buñ la yeewee ne la baat sàngam ñaat la ci alxuraan nga ne nàngam saar sàngam ne ak saar sàngam ak saar sàngam loolu moom ma kokki waaye bi nga màggee baax nag xam ni nag Cheikh Mamadou Fadal leen la duppee nga jël si lépp joxaat ko Serigne Abo Baraka mu Cheikh Mamadou Fadal Serigne Abo sant la gërëm la waa Koki sant la gërëm la te yow nag li nga am Touba boo ko takkoon bëgg a dem waa dëkk bi bañ sept ans la Serigne Touba def ci géej gi ko ba njëkk a fekk sa maam la Serigne Modou daggana Dagana dërëm la yor ne gis Serigne Touba wala faatu moo tax nga dégg Serigne Moussa ne ku weddi laajal la ma Modou Lo ba mu laata gisee ak Cheikh Bamba soree na ni xëyee na ko ki guy bisub talaata ni tàbbi ci géej gi ba ñu ne xadd maata ba weer wa dellu si ci dewen ak bis ba lay door a seeru Bamba ngir pas-pas ba sa maam daa jaar Banjul jaar sigi coor dem karabaan wii si jolaay di buur jaxala man dikki la dox ci gaawu romb seraale woon ni fanaan fab gaawu ni xëyee seraale woon ni jàll biré bii ni laajte sëñ Tubaa mu weesu arabi sa maam dox na man ruy dem karan liw jaari grand ma di seen dunub tabuk te naan làmbal ma dox akara waxtaan ak cumune korboy naan ko soo daan sa maam tefesu jëm bi sërwali laajte sëñ Tuubaa ñu ne ko dem na baafali waaye Portonou Cotonou Sinti Kama romb na leen jàll Gabon ñu naan comment mu laajte Seex Bamba sa kayta mu naa ko wéy na kongo naa la siita ker la wàcce kable pisa laaj Bamba ñu naan ko yàlla janga wéy maa yomba moo da nga dégg mu ne ker la Bamba njëkk gis men rijaal ab olof bu naan dama ni dëkk Sénégal kon yow yoon wi li nga ci am boo ko takkee a aale sene ba samaam daa jaamu sunu borom ba sunu borom ne boole koo jinne jinne ne ko duma nit jinne laa sàkku péta urs loo bëgg mu ne ko xam-xam jinne jo jox ko dàkku ndaam ñu jox ko soxna xuja kumba sëy mu am ci gaydel xuja kumba sire xuja kumba daaro xuja kumba faaloo xuja ginnaaw kenn yóbbaaliwu la gaynde baara gaynde baara sëñ Mohamed Sylla jërëjëf ah Modou Lo Dagana ah Modou Ngoy Njaay mi sire ku jokkumba ni gaydel ku jokkumba daaro faalu sayib mante ante seet yow koo nuyoo ci mbàkkati bokku leen dara bu séeréer ñaari kilo ceeb gàmmu du jeex mbaa fu mu tukki yalwaani Mouhamed Sylla doomi sëñ Bass Xaadima ba ji agsi na taalibe sëñ sa umi Mbàkke bi agsi na sëñ Bass nee na xaritam waaye sëriñ Bass Serigne Sidi mu sëñ Modou Makhtar daa wax léegi lu am solo dani 2012 bi nga naan Macky Sall day gagné Ablaye Wade ñu ko ñemee wax bëriwut mu ne ca kër Ousmane Masek ay boobu it basan nga ca guy mind Serigne sii day lal sëñ Cheikh Aziz toog sëñ Laat moom Serigne Abdou Aziz Baara toog ak njabootu sëñ Baara gépp nga jël engagement ni borom pénc mi nee na ma Macky Sall lay yow riir mi mën naa bari ñu ne fee feesal nga siis espace bi ñëw na mbooloo mi ñëw na milliardaires yi wër nañ la dama ne loolu mbirum kaw la waaye li ci biir yow da ngaa jege sama dama ne kii mooy xarit bi sëñ Baara am na loo xam ne boo ko nattee ci xel boo boo boo xoolee ci aasam xool ñu ko mag ci guy mind ak li mu mën a defal ci sëñ Baara bu ñu nee gaynde Baara xel yi dem ci kenn muy kan doomi caatu sëñ baara te dama ne lépp lu réer ci néeg bi ka fa mucc lañ koy jiiñ sëñ xaadim oo bàyyi caatu señ baara en samaam nag bi sëñ tubaa sancee daaru salaam sëriñ Modou Moustapha dafa feeñ taxaw sëriñ Fallou feeñ taxaw yàlla wan ko suufus Touba samaam bii mu sancee Touba ka fa njëkk a feeñ te kenn rek la di góor beneen góor feeñaatu mooy sëñ Modou Lamine Baara sëñ Touba daan na mag ñi li ngeen fi doon sàkku yéen ñëpp ngan gi junte indaal na ko tamay bara atumina naar moo tax sama sëriñ ne bis bam nga ca la seex naa bamba seexali seex yu xuus ci bamba ba jeex ngir gan gi seex baara ni seex abduloo ma fa ndaam mbokk la tey sama maam bisu keroog am na fa daam ay ngërëm ngir baara waaye daaru asan ka mag bisub keroog ci la yëg ni ay mbiram dafa jag ngir gan gi Cheikh Baara ak maami Moodu masaa Masamba Jooba di mbër bisub keroog ni seddu na cër ngir Cheikh Moodu Lamine Baara ak borom jasaaka itam ni Cheikh Ibra Sarr na nga xam bisub keroog ci la dégg jasaaka ngir Baara mu doonoon kenn nag naaw sëriñ Touba sëñ Baara ëpp lim bind ci njabootu sëñ bi ëpp lim bind ci yoon wi te loolu yow yaa ko jàngal nit ñi ndax ñun bi nii gone kaseti lamp yi lañ daan déglu sëñ Cheikh làmb naan ñu bu seen baara taalee alaaji Fallu Fay ñu doona doona déglu kaset yooyu ba noppi doon ko gëm ndekete kaset yooyu ay caaxaan la bi sëñ Bass wootee journée bi ci lañu jàngal mun a wirul bu nu yaan busraaki yaa ardi Touba ak yaa rabbana inna la tadaroo indil ñu yërmandey Serigne Baara laabiru Serigne Baara ak fonk gi mu fonkoon ni sëñ Fallou ni xam ni mooy magam ni sëñ Fallou musta gis sa mbaxana sëriñ Baara ni sëñ Modou Moustapha musta gis mbaxana Serigne Baara yow mii yaanu jàngal loolu indi ko ci journée bii ci Dakar kon yow yal na la yàlla taxawu yal na la yàlla sàmm ñii nag Mbàkke kenn amul sa pay ñun ñëpp Seydou mooy suñu jawriñ ji Seydou ñenn ci ñun Seydou mat na nu bàyyi ñenn ñi Seydou seen eh, nijaay la waaye sëñ bi Seydou wàccee na boppam Seydou oyof na Seydou ne xol bi laat na ba noppi Seydou ref ref référence la ci ñun ci lan fo fonk sa kilifa ak am euh, ta ta taalube gis nga bisu bés ne la Serigne Bassirou Khadima Awa Ba nee na ma naa la sant gërëm la yow nag li tax nga nga nga mat a sant mooy dangaa mbapatandoog gaa yi ndakaaru gii da nga fee mbapat fanaan nga fi néegu 3000 fanaan nga fi néegu 6000 bu 30000 dëkk ci appartement cent soixante quinze mille dem ba am dem ba am Ibou Fall Bogo transit cantuk Seydou ci moom ñun ñëpp a koy maase alaaji Samba Diaw jërëjëf Baye Cheikh Awa Balla seen jiili jërë ngeen jëf nangeen ngeen nu santal jëwriñ dama ne Ibou Fall Seydou ot يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك معا ليسمعوا يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك معا ليسمعوا يا ربنا إن الورى تدرو لأوليائك من ليسمعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا وجلنا لطفا وجلنا لطفا وأمنا يا أحد يا من تالا لم يكن غفنات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى li kulli man yattaqi naaran bi taati waxal kitaabu la si laa rayba fii hudan li kulli may yattaqi naaran bi taati wawalu daawa siraatil mustaqiim lana فكل من آبوا لقى سقاوات والهدى وسيرة المستقيم لنا فكل من غفو لقى سقاوات بتوبة وبإسلام الإله مالكي خد جاد بالمستوى Moustapha kansul bariyaad Cheikh Mouhamadou Lamine taalif na téere yu mag tabiina saadatul abraaru ak munawirul bunyaan taalif na salim seex seex seex lamin sakku ku mel ni Mama Njaay bunyaan muy jooru bis bu fanaane jàng gaa yëpp waaru ahmadul alamin yow de amuloo morom tuñoo mi ndeef te ki nga sa borom baray mamadul amin siñ baara yow yaay sunu mbër baaj leen baaray modul amin siñ baara yow yaay sunu mbër baaj laminoo baraka Mbaye yow laay jox kàddu waaye sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Modou Makhtar sëriñ Bas nee na le 20 janvier Touba Pay Pay nee na kon ñëpp a ngi koy waaj. amuloo kon mbooloo ñëpp aw ma kàddu ci bis bi waaye bis bi day bisub alaaji Seydou si muy sab xarit kenn ci yow Bassirou Khadim Awa Ba takkal nag raaya woo xam ne tey danga koo mérité ko soole ci Sénégal rëj rëj la aj mu at mu dañuy ñaan moom kàddu mënoon naa dugg ci biir mu yóbbaale ko géew Serigne Touba boole ñun. ndax li leen Serigne Touba boole ñii. fardu muy fardu kifaaya. bu ñuy bu ñuy jëfee. yóbbaale yóbbaale nañ ñi ci des. wax fi kàddu yu am solo. nee na Serigne Sidi wax fi kàddu yu am solo. ci dikkaat. nee na dina ci dikkaat. yëkkati nag nuyoo bu sell. nee na moo ngi yëkkati nuyoo bu tedd te sell. di ko teg ci jëmm ji toog. di ko teg ci. loxol waajuram wii toog sëriñ Cheikh Oumy Serigne Cheikh Oumy sa doom ji nee na zuriyatan tayyibatan tayyibatan tujaddidu tujaddidu nahja nahja nabiyil mustafa nabiyil mustafa tajtahidu Serigne Touba moo ko ñaanoon boromam nee sa maam ju baax de Serigne Touba moo ko ñaanoon boromam sët yu baax yu sell yuy dimbali jaami yàlla yi ñoo xam ni ñoo xam ni seen jëf seen jëf lépp lépp mooy luy dundal mooy luy dundal sunna Seydina Muhammad sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te Mbàkke ci loolu nga nekk Serigne Cheikh Oumy sa doom ji Serigne Bassirou nee na yow mii ci loolu nga nekk jataay bii nee na jataay bii maa ngi lay xool boobu ba léegi. nee na boobu ba léegi yow rek lay xool. gisuma ci yow benn. nee na gisul ci yow benn. benn signe. benn siiñ buy nuroog. buy nuroog. ku bëgg a dem. ku yàkkamti ku yàkkamti. li muy tegtale nag. nee na loolee nag li muy tegtale. mooy sëydu. mooy sëydu. nit sëriñ Bassirou nee na kenn amul. daf koy nee na ndokk nag bi nga xamee ne yow alaaji Seydou si xam nga loolu. am na loo xam ne. nee na am na loo xam ni. koo xam ñàkk koo xam. dañ koo am. moo gën moo gën. am ko te xamoo ko am ko te xamoo ko. nee na mi ne. la sëñ Fallou sëriñ Xaadim Awa mag ci sëriñ Xaadim Awa Ba ak ñeewantam bëgg ko lool bëgg ko lool Awa Ba am bëyit yu ko way amoo luxa bu wér. xamoo arut. xamoo arut. ak bayaan ak bayaan. ak mboolem matière yi mën a tax nit di mën a way. ak mboolem matière di grammaire arab yi. doo ko man kaana haazal xabru. mu ni ko law kaana haazal xabru. yam. yalqa. yalqa. xal bi xal yi. ni ko ahwanta ni ko ahwanta wujdi tuayyiduni tuayyiduni fi kulli daf'in fi kulli daf'in wuyutuka wuyutuka wuyutuka wuyutuka yootu mooy xëcc wuyutuka xam nga dafa wa jalbu la war wax xam nga dafa wa jalbu la war a wax mu indi baat mu indi baat abxaaka ni ko abxaaka rabbul ci ñi nga xam ne lii muy wax dégguñu arab ma tekki ko. nee na mu tekki ko ci wolof. sëriñ Baara Serigne Xaarim dafa wax Serigne Fallou ni ko. sëriñ Xaarim Awa Ba dafa woy baayam sëriñ Fallou ni ko. ni ko yow dey. ni ko yow dey. ladaykum daawul xalbi wal xalbu zaibun xol bu feebar. xol bu feebar. bu wopp bu wopp. bu aaje médicament. bu aaje ay médicament. moo ma dal. moo ko dal moom Serigne Xaarim. te yow yaay ki nga xam ni. te yow sëriñ Fallou yaay ki nga xam ni. yow rek laa yaakaar. yow rek laa yaakaar. médicament bu ma faj. ci garab gu ma mën a faj. mu ni ko lu tax. sëriñ Fallou ni ko lu tax. mu ni ko le xabrin sawa baynal musalla fa kàdd ga ngir ki nga xam ni. mu ni ko ngir ki nga xam ni. dafa tëdd. dafa tëdd. fi ñuy jullee it. fi ñuy jullee it. ak kàdd gi. moo tax mu ne baynal musalla moo tax mu ne ko baynal musalla fa kàdd ga fa kàdd mu ne ko lawkaana mu ne ko lawkaana haazal xabru haazal xabru bu fekkoon ni bu fekkoon ni cheikh Mouhamadou Lamine cheikh Mouhamadou Lamine yam si ala sara yam si sara moom borom ki tëdd ca bërëb booba moom mi tëdd ca bërëb boobe bu fekkoon day dox ci kaw suuf bu fekkoon day dox ci kaw suuf lammaa yalxa lammaa yalxa xalbi bi xurbatan nayi xurbatan nayi aw kër ga aw kër ga du ma am njàqare du ma am njàqe njàqare te weetaay bi ma wét te weetaay bi ma wét du am du am ngir du sori kër gi ngir du sori kër gi mu ne ko waaye ahwante wujudi wàññi nga samay njàqare mu ne ko waaye yow wàññi nga samay njàqare li araa ngir gis gi ma lay gis ma defal. mu ne ko nag nag ma defal. fii kulli fii kulli dafin. ci dafon. fi daf yi. ci dafon mooy joñ. nee na loolu mooy joñ. ak ak ak ak ak fii kulli dafin wóoyatu nga defal ma joñ ak ñoddi. nga defal ma joñ ak ñoddi. mu ne ko ab xaaka. mu ne ko abbu xaaka. rabbul arsi. rabbul arsi. yal na la fi yàlla desal. maa habati riyaa. maa habati riyaa. feek ngelaw laa ngi upp. feek ngelaw laa ngi upp. wama daama maawul musli. wama daama maawul um musli. li feek ndoxum taw mi ngi wàcc. li feek ndoxul taw mi mi ngi wàcc. yokku siru. mu ni li feek ndoxum taw maa ngi wàcc. mu ni ko fi ndoxum taw maa ngi wàcc. bu baree. bu baree. noonu muy def. noonu muy def. di dal di dal. li feek mi ngi am. feek mi ngi am. yàlla na la fi yàlla bàyyi. yàlla na la fi yàlla bàyyi yow Serigne Fallou kon diggante. kon Serigne Cheikh Oumy sa doom ji Serigne Bassirou nee na yéen seen diggante. suñuy kilifa ngeen. da ngay kilifaam. suñuy kilifa ngeen. sunu seen ay kilifa ngeen. di sunuy di di seen ay waajur. Sidi Maxtaar wax na ko léegi. nee na Serigne Sidi Maxtaar wax na ko léegi. toogaay bi ci kaw sax toogaay bi ñu toogandoog yow ci kaw sax jaaduwul. nee na moom day mi ngi koy jégalu bu baax. ndax loolu ngeen mérité ci ndax loolu day moom ngeen mérité ci ñoom. laa tarfa'u aswaatakum. nee na laa tarfawu aswaatakum fawqa sawti nabi nee na loolu woon ci biir nee na loolu nag na mu valable woon ci yonent bi ak ay saabaam noonu la valable ci sëriñ tubaa ak njabootam noonu la valable ci sëriñ tubaa ak ak njabootam noonu la valable ci ñun ñi nga xam ne seeni doom lañ ngeen di suñuy baay nee na nag la valable ci ñoom ñi nga xam ne dañ dañuy seen dañuy seeni doom ngeen di seeni baay ñàkk yëkkati seen kaddu nee na ci ñàkk a yëkkati seen kàddu bu ngeen teewee ak bu ngeen toogee ci kaw ak bu ngeen toogee ci kaw ñoom ñu toog ci kaw waaye yow nit ku baax waaye Serigne Cheikh Oumy Serigne na yow nit ku baax nga nee na ni nga jàppee Seydou si mii nee na lii ku mu doyul dara dootu la doy kon Mbàkke yàlla na la fi yàlla bàyyi yàlla guddal saw fan yàlla guddal saw fan sàkk nga ci yoonu sàkk nga ci yoonu murid jamono bi nag yàqu na sëriñ bi nee jamono nag yàqu na ba ku warul oto yi rafet dëkkoo ci kër gu rafet dëkkoo ci kër gu rafet solo mbubb yu rafet solo ci mbubb yu rafet yi yaakaarewul la xaalis yaakaarewul la xaalis dañuy jàpp ni dañuy jàpp ni dara nekkul ci yow nekkul ci yow te mbir mi nekkul foofu te sëriñ bi nee na mbir mi nekkul foofu imaamu Saafi nee imaamu Saafi dafa wax lu am solo dafa dani àdduna dani àdduna magasin yi fi nekk màngasin yi fi nekk wurus la magasin urus la nee na magasin urus la ak xaalis xaalis. waaye waaye mu ni yow doomu adama bi. mu ni waaye yow doomu aadama bi. na nga def yow sa magasin. na def yow sa magasin. ijaal. ijaal. nuusuka. ku nuusuka. ku nuusuka. min birrin. min birrin. wa imaani. wa imaani. def yow sa magasin. nanga def yow sa màngasin muy mbaax. muy mbaax. ak ragal yàlla. yow foofu nga nekk. nee na nga nekk. li ñuy yëg ci yow. nee na li muy yëg ci yow. di ko jàpp ci yow. di ko jàpp ci yow. Serigne Touba rek la. Serigne Touba rek la. wuutalewuñ ko. nee na wuutalewuñ la ak. bu fi Serigne Xaadim toogoon. bu fi Serigne Xaadim awa ba toogoon tey. kon Mbacke jërëjëf. kon Mbacke jërëjëf. Serigne Modou Abdoul Wudoor. Serigne Modou Abdoul Wudoor. jërëjëf. Serigne Bassirou nee na jërëjëf. yow nit ku baax nga. nee na yow nit ku baax nga. bëgg lu baax. ku bëgg lu baax nga. ku mën a dundal mbokk. ku mën a dundal ak mbokk nga. ku am solo. ku am solo nga. ci jamono bii nu toll. doxug mbokk. nee na doxug mbokk. ci doxug mbokk. ci doxug mbokk. ak lu koy dundal. ak lu koy dundal. lu koy suuxat. doo benn yoon. nee na doo ci tàyyi benn yoon. waaye loolu. waaye loolu. kilifa gu baax nee na seen kilifa gu baax ga. muy Serigne Moustapha Abdoul Karam. mi nga xam ni mooy sa kilifa. moo mi nga xam ni mooy sa kilifa. di sa xarit di sa xarit. soppe. kon jërëjëf Mbacke. kon jërëjëf Mbacke. Serigne Sidi. Serigne sëriñ Basiru nee na kàddu yi rafet na. tege na ci yoon tege na ci aw yoon. tege na ci xam-xam tege na ci xam jamono bii ñu nekk nag. nee na jamono bii ñu nekk nag. wax nga dëgg. nee na Serigne Siri Serigne Bassirou nee na wax nga dëgg. waratu ñoo nangu. nee na waratu ñoo nangu. di nekk otage kenn. di nekk otage yu kenn. surtout ci réew. surtout ci réew mii di Sénégal. yow nag. nee na yow nag. daaw Daaru Moussi. daaw Magalu Daaru Moussi. def nga fa discours boo xam ne. def nga fa discours boo xamante ni. bu am solo la. bu am solo la. li nga waxaat tey. li nga waxaat tey. méngoo na ak la nga waxoon daaw. jërëjëf yal yàlla sàmm. sëriñ bi nee na jërëjëf yal na la yàlla sàmm. nee na mi ngi sant. sëriñ Mamor Mbacke Dendey Mayon. mu sëriñ Ibra Khoudia. di mbokkum. di mbokk di mbokk. di xarit di xarit. di soppe. nee na mi ngi sant. sëriñ jiili moomu toog seen wet. sëriñ jiili moomu seen wet. di sëriñ jiili pofti. nee na mi ngi ñëw ci Serigne Baara Mamor mii. nee na sa baay Serigne Mamor Fallou. nee na moom la ñu rafaatale woon alxuraan. nee na loolu nag du hasard. ndax dafa amoon xam-xam. doonoon ku wegu. doonoon ku wegu. doonoon joo xam ni. doonoon jëmm joo xam ni. lu dul sëriñ bi. ak alxuraan. ñoru ko. te Serigne Touba wax na ni. wax na ni. alxuraan alxuraan mooy sama lépp mooy léppam mu wax ni mu wax ni naajaaniyal munzilu naajaaniyal munzilu bil qur'aani bil qur'aani xataa xadawtu xataa xadawtu samaani yàlla sama boroom yàlla sama boroom wuyu na ma ci alxuraan wuyu na ma ci alxuraan ba ma mujj doon naanukaayu képp ku mat ba ma mujj doon naanukaayu képp ku mat kon yow cër bi nga am ku la gis xelam dem ci sa baay ndax mbaax gu mu baaxoon ak bëgg gu mu bëggoon doomu aadama jërëjëf Mbacke sëriñ Abdou Khoudous sëriñ Bassirou Mbacke xaarib awba nee na sëriñ Abdou Khoudous moom sëriñ Cheikhouna moom sëriñ Abdou ak sëriñ Bassirou nee yaay moom mooy yow nee na wax na la bërki dem ci sa tudd ma nettaliwu ma ko woon. nee na nettaliwu ko woon. waaye danaa ko nettali waaye dina ko nettali tey. ni nga tuddee Serigne Sidi sa doom. nee na ni nga tuddee Serigne Sidi Cheikhouna naa doom. man sama taaw. nee na moom taawam. ki ko tudde ki ko tuddee di rakkam sëriñ Modou Antamar. ñoo bokk nee na ñoom ñaar ñoo bokk baay. dafa gaañu 6 mois. dafa gaañu 6 mois. kii juddu. sëriñ moodu taawam juddu. mu tuddee ko ko. nee na loolu mooy ak mbokk booy xaar nee na nit booy xaar kuy dund rek kuy dund rek ngay fàttaliku kuy doxe noonu kuy doxe noonu jaroo jàpp jaroo jàpp jaroo ndax dund moom ndax dund moom yàlla moo ko moom yàlla moo ko moom te lu gàtt la te gàtt la te saa su nekk te saa ak jamono bu nekk ak jamono bu nekk bu soobee suñu borom mu rocc prise ba kon Mbàkke sëñ bi nee na jërëjëf sëriñ Mamor Dendey mu sëriñ Abdou moom sëriñ Modou Xaban sëriñ Basiiru nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla ñu yàlla jàppale la nee na moo ngi ñëw nag nee na balaa ñëw ci Mouhamed Sylla bala maa balaa ñëw ci gaynde kokki sëriñ Fallou Galas Lo nee na mi nga xamante ni ci tey mooy parrain bis bi. damay ñëw ci ku yàlla baax. Serigne Bassirou nee na day ñëw ci nit ku yàlla baax. jamono ji nag. nee na jamono ji nag. boo seqee ak nit àdduna. boo seqee ak nit àdduna. mu fonk la mu fonk la. te du obligation. te du obligation. mu jox la cër. mu jox la cër. te du obligation. te du obligation. mu lay yëkkati alalam di la ko jox. muy yëkkati alalam di la ko jox. te du obligation. te du obligation. sëriñ bi rek la. sëriñ bi rek la. akuk cofeel akuk cofeel akuk mbokk akuk mbokk tem koy defal ñëpp tem koy defal ñëpp boo ñëwee ci bis bu mel nii boo ñëwee ci bis bu mel nii doomi sëñ fàllu toog doomi sëriñ fàllu toog danga nga sàkku da nga sàkku ñu ñaanal ko kon Mouhamed kon Mouhamed yal na la yàlla defal jàmm PDG Mouhamed Sylla sëriñ Basiiru Mbàkke nee na yàlla na la yàlla defal jàmm yow nit ku baax nga Mouhamed Sylla mu sëriñ Saaliwu sëriñ Basiiru nee na yow nit ku baax nga ku nee na ku fonk doomu aadama ku xam teraanga ku xam teraanga ku mën sonn ci nit. ku mën a sonn ci doomu aadama nga. lu baax. sëriñ bi nee na Mouhamed Sylla ku bëgg lu baax la. te de te sëriñ Bassirou Xaarim Awa Ba nee na nag te de retour. xaaroo dara ci luy jóge ci nit jëm si ci yow. Mouhamed Sylla sëriñ bi nee na yàlla na la yàlla defal jàmm. ya nee na yàlla na la yàlla sàmm. imaam Bousso jërëjëf. imaam Bousso sëriñ Bassirou nee na jërëjëf. kaddu yi rafet na. nee na kaddu yi rafet na. géejawaay géejawaay. ndigal la fi indi woon ndigal la fi indi woon. ndigal nga fi nekk nee na ndigal rek nga fi nekk. Ibra Sarr Ibra Sarr. Jazaaka Fallou Sarr Jazaaka. Serigne di jarbaatu Serigne bi. Serigne bi nee na yàlla ko yàlla defal jàmm. Serigne Cheikhouna. Serigne Cheikhouna. mu Serigne Bas mu Serigne Fallou. moom Serigne Fallou. mu Serigne Abo. ko yàlla. sëriñ Abo Baraka. moom sëriñ Abo Baraka. na ko yàlla defal jàmm muy sëriñ Abo. sëriñ bi nee na yal na ko yàlla defal jàmm moom sëriñ Abo. ndax bis bi. ndax bis bi. ci ndigal la ko Seydou teg. ci ndigal la ko Seydou si mii teg. muy sëriñ Abo. muy sëriñ Abo di sëriñ Fallu. ak sëriñ Basiru. ak sëriñ Basiru. moom sëriñ Fallu. maa ngi jéggalu. nee na moo ngi jéggalu. ñoom ñaar. ñoom ñaar. ñoo waroon a jiitu. ñoo waroon a ci nuyoo bi ci nuyoo bi. ak cant gi. sëriñ Abo. sëriñ Abo. nit ku baax sëriñ Basiiru nee na sëriñ Abo Mbàkke barakom sëriñ Fallu nit ku baax la. na ak Fallu. sëriñ bi nee na toog na ak Fallu Galas Lo mii. sëriñ na sëriñ aboo wax ko. ci Fallu mii. ci Fallu Galas Lo mii. loo xam ni. loo xam ni. ku yéenewul nit jàmm. yéenewul nit jàmm. defoo ko boole woo ko ci sa njaboot. ko ci sa njaboot. doo waxee wax ju rafet. doo wax wax ju rafet noonu. kon sëriñ Abo Baraka yàlla na ko fi yàlla bàyyi. yàlla na yàlla guddal fanam. yàlla na ko yàlla sàmm. waaye Seydou si. sa bunt ci Serigne Touba. Serigne Bassirou sa bunt ci Serigne Touba. muy Serigne Bassirou. muy Serigne Bassirou moom Serigne na ko yàlla dolli jàmm. yàlla na ko yàlla taxaw. yàlla na ko yàlla sàmm. yàlla na ko yàlla aar. yàlla na ko yàlla aar. bëgg nga bëgg nga ko sagoo nga ko sagoo nga ko waaye moom sëriñ Basiiru sagal na la wéram aajam jotam mayu ko muy ñëw ba fii tey ci bis kon bu ko defee sa jëmm rek moo tax sëriñ bi nee na jëmm ji toog di moor moor loo sëriñ Basiiru nee na dafa bokk ak moom lépp muy nit ku baax ku yàlla baaxal sëriñ Mor Lo sëriñ bi nee na yàlla na la yàlla dolli jàmm. sëriñ Mamour Lo Gaydel. sëriñ Mamour Gaydel. mën a doon. sëriñ Basiru Xaarib Awa Ba nee na yow moom bërëb bu mu a doon. bërëb bi sëriñ Touba muy bërëb bi sëriñ yi. foofi dem. foofi dem. am nga fa wàccuwaay. am fa wàccuwaay. ndax ndax sab yar. ak say teggin. kon nag yàlla na yàlla defal jàmm. yàlla na la yàlla taxaw. sunu waajur nee na waajuram woowu. di soxna Baali Muntaxa ñàkk fee nekk nee na ñàkk fee nekk moo tax moo tax bërki démb la tukki démb la tukki waaye lu Seydou waaye lu Seydou si nekk mu nekk ca ak moom délégation jëwriñ Serigne Mbacke yu fay nee na Serigne Bassirou nee na délégation jëwriñ Serigne Mbacke yu fay alaaji Samba Diaw alaaji Samba na ñépp a koy sagoo ñépp koy puukare woo ñépp a koy puukare woo ngir ni mu def Serigne Touba ak li mu defal Serigne Touba jërëjëf nee na jërëjëf Serigne Aliou Sanke Serigne Aliou Sanke ci taxawaay Serigne bi nee na jërëjëf ci taxawaay bi Cheikh Fall Cheikh Fall li la Seydou defal li la Seydou defal Ibou Fall Serigne Bass nee na li la Seydou defal ñoom ñépp kontaan na ci waxaguma Cheikh Fall Ramata. bi nee na jërëjëf. délégation premier ministre. délégation premier ministre Amadou Ba. seriñ bi nee na bëgg nañ lool. nee na Amadou Ba day xaritam. nee na mi ngi koy ñaanal yàlla. yàlla jàppale ko. yàlla jàppale ko. yàlla sàmm ko. nee na mi ngi sant ñi fi ñëw ñëpp. sëriñ jiili kennal. di rakkam. di xaritam. mook sëriñ Sidi Maxtaar Silla waaye buur daali waaye sëriñ bi nee na sëriñ Fallou Galas Lo gaynde kokki buur daali man sëriñ ba nee na moom mii bu ma gënee sawar ñëw ci bis bi tey bu gënee sawar ñëw ci bis bii tey du ay xeer nag nee na du ay xeer nag du ay xeer waaye Fallou sëriñ bi nee na yaa ko gën a motiver. ndax cër bi la Seydou jox. ndax cër bi la Seydou si jox. sa soppe. nee na kuy sa soppe. di sa mag di sa mag. di sa xarit di sa xarit. di sa soppe di kontaan na ci cër bi lañ jox Seydou jox. nga nekk ku baax. nee na nga nekk nit ku baax. man maa la yar ca kokki. sëriñ Basiru nee na moom mii moo la yar ca kokki. jàngal la jàngal la alxuraan. ngay ku alxuraan. ngay ku mokkal alxuraan. dama la sànq ci oto bi. nee na daf laa wax sànq ci oto bi bi ngeen di ñëw. da nga defee sax dama lay ruube mais ruube wu ma la. jàpp nga ni sax daf lay ruube waaye ruube wu la. nee naa la bruit bi nga yore. nii la bruit bi nga yore. ak yëngal yu metti bi. ak yëngal bu metti bi. noo mën a def daal. noo mën a def daal. ba fëttoo alxuraan. ba fëttoo alxuraan. loolu daf koo jaaxal. ndax bi muy ñëw ci oto bi. ndax bi muy ñëw ci oto bi. kasatu alxuraan nga teg. kasatu alxuraan nga teg. te maa ngi lay déglu yow rek bàyyi xel. nee na moom fi mu toog yow rek lay bàyyi xel. kon loo kon loo ku baax nga sëriñ Basiiru nee na sëriñ Fallou Galas loo yow nit ku baax nga sa nee na sa baay sëriñ Mor loo ni ma ko xamee nee na ni mu ko xamee jàpp naa ni sax yow xame woo ko jàpp na ni yow Fallou Galas loo xame woo ko noonu mu nekkoon jëmm joo xam alxuraan la bëggoon nee na mu nekkoon jëmm joo xam ne alxuraan rek la bëggoon léppam alxuraan na léppam nekkoon alxuraan say mag nee na say mag muy aadama ca aadama di daam di ñoom ñëpp xaafisul xuraan ñoom ñëpp ay xaafisul xuraan la. sëñ Mbàkke. sëñ Mbàkke. say rakk say rakk. ñi nga bokkal baay. ñi nga bokkal baay. ñi nga bokkal ndey ak baay. ñi nga bokkal ndey ak baay. ci ëpp. ñi ci ëpp. ku ci dul aadama. ku ci dul aadama. ak daam ak daam. maa la doon jàngal alxuraan. sëriñ bi nee na moom mii moo la doon jàngal alxuraan. te ñëpp xaafisul xuraan la. te ñoom ñëpp ay xaafisul xuraan la. kon boo jógee. kon boo jógee. jóge ci daara ja. jóge ca daara ja. jëlaat sa lépp. jëlaat sa lépp. delloowaat ko kokki delloowaat ko kokki di ko yalwaanal di ko yalwaanal te baat boobu baatu yalwaan te nee na baatu yalwaan yaa tax yaa tax kenn nekk kenn amatul complexe kenn amatul complexe ci tudd baat bi ci tudd baatu bi yalwaan yaa tax kenn amatul complexe boobu nee na yow Fallou Galass Lo yaa tax kenn amatul complexe boobu dara waralu ko te nee na dara waralu ko lu dul bëgg gi nga bëgg lu dul bëgg gi nga xam ni bëgg nga ko alxuraan kon bu la Seydou si tuddee bis bi. dara jaale la ko dara jaale la ko. nee na bisam la. rawatina nag rawatina nag. mu ciy rendre hommage. mu ciy rendre hommage. waajuram. Serigne Modou Makhtar. Serigne Modou Makhtar. mu nekkoon gaynde Serigne tubaa mu nekkoon gaynde Serigne Touba. amoon pas amoon pas-pas. bëggoon sëriñ bi bëggoon sëriñ bi. wóolu sëriñ Touba. wóolu sëriñ Touba. yamalewul woon dara. yamalewul sëriñ Touba ak dara. dafa jaroon ñu teewlu. nee na loolu rek jaroon na mu teew ci des mooy sëriñ xaadim mu sëriñ mu sëriñ Moodu Busa Jeng moom Busa Jeng Seydou rafet benn lixlaas nee na benn lixlaas xayrun mina dunya wa ma dafa am ñetti ñu àndoon di tukki. dafa amoon ñetti nit ñu àndoon di tukki. romb ay armeel. romb ay armeel. jàng jàng lixlaas. ku ci nekk jàng ñetti lixlaas. ku ci nekk jàng ñetti lixlaas. ñett ñu àndoon lañ. àndoon la. ñu romb armeel. ñu romb ay armeel. ku ci nekk jàng benn lixlaas. ku ci nekk jàng benn lixlaas. ñu yéene ko ñu tëdd. ñu ko ci armeel. ca déwén si. nee ñu jaaraat marché luuma. ñu jaaraat fa di dem benn marché luuma. ñëw ba tolloog armeel yi. ñëw ba tolloog armeel yi. ñëpp. yàlla defal leen kasfu. yàlla defal leen kasfu. ñu tolloog armeel yi. ñu tolloog armeel yi. mu yëngatu. dégg mu yëngatu. yi di vibrer. mu jaaxal leen. mu jaaxal leen. kenn ci ñoom. kenn ci ñoom. yàlla yàlla may ko may ko mu laaj suñu borom mu laaj suñu borom déer mu laaj néew yi mu laaj néew yi ni leen waay yéen ni leen waay yéen li ngeen di yëngatu lan la li ngeen di yëngatu lan la ñu ne ko nëgëni si daaw ñu ne ko nëgëni si daaw dafa am ñetti waay yàlla yu fi jaaroon. dafa am ñetti waay yàlla yu fi jaaroon. di tukki di tukki. kenn ku ci ne. kenn ku ci nekk. jàng lixlaas yi. jàng lixlaas. sarax ñu ko sarax ñu ko. ñu koy séddoo ñu koy séddoo. daaw ba daaw ba ren mënta jeex. kon Seydou. kon Seydou. sëriñ bi nee na rakkam jooju nga fàttaliku. sunu baay boobu nga ci boole. nee na baayam boobu nga ci boole. di sëriñ Modou Mokhtar sunu xol sedd na ci lool sëriñ bi nee na xolam sedd na ci lool ndax ñaan yi fi ñaanal ndax ñaan yi nga xam ne ñaanal nañ leen ko fi yàlla yàlla duwaawul mustajaab lay doon duwaawul doon ñaan lay doon goo xam ni ñaan lay doon goo xam ni yàlla suñ borom dina ko nangu te ñoom ñi dem te ñoom ñi dem li ñu soxla li ñu soxla sëriñ tubaa wax na ko sëriñ Touba wax na ko wa arhabul ashyaa'i. wa arhabul ashyaa'i. lil amwaati. lil amwaati. raddun. raddun. ila dunya. ila dunya. maal xayaati. maal xayaati. walaw suwayatan. wala walaw. faqat. faqat. li yaxmalu. li yaxmalu. saalihatan. saalihatan. tanfahum. tanfahum. in xafadu. in xafadu. Serigne Touba nee na. Serigne Touba nee na. ña dem. ña dem. jiitu jiitu. amul li ñu soxla. amul lu ñu soxla. lu dul lu dul. dellu waat ci àddina. dellu si waat ci àddina. jëf fi benn jëf bu baax. jëf ci jëf fi benn jëf ju baax. may nit ndox mu naan. may nit ndox mu naan. tibb tibb ceeb jox ko nit mu lekk. tibb tibb ceeb leel ko nit mu lekk. wala di def nii fàlluy def. wala di def nii fàllu garas doo di def. di yalwaanal kokki. di yalwaanal kokki. wala li Mouhamed Sylla di def. wala li PDG Mouhamed Sylla di def. di tabax ay duus ci àll bi. di tabax ay wanag ci àll bi. di xëcc ay branchements sociaux ndox. di xëcc ay branche branchements sociaux ndox. Serigne Touba nee na ña dem. Serigne Touba nee na ña dem. loolu rek lañ soxla. loolu rek lañ soxla. te loolu faat na ci ñoom. te loolu faat na ci ñoom. mënatuñ koo am. mënatuñ koo am. waaye buñ leen dee fàttaliku. waaye buñ leen dee fàttaliku. di leen ñaanal. di leen ñaanal. day taxaw. day taxaw. day taxaw taxawaay boobu. kon Seydou jërëjëf. si Serigne Bassirou nee jërëjëf. nee na njabootu sëriñ xaadimum sëriñ Modou bu sa jëng ngi nii toog rakkam soxnaam soxnaam ak ay njabootam ak ak ak njabootam ñoom ñëpp ñu ngi nii toog kon loolu nga def kon loolu nga def am na solo lool sëriñ bi nee am na solo lool ndax ñooñu ndax ñooñu dañ leen a war di fàttaliku di leen ñaanal yàlla alaaji turu njabootu Serigne Modou Fall ka gépp ci turu njabootu Serigne Modou Fall ka gépp Serigne Bassirou nee na mi ngi lay nuyu. di la jox cantuk Seydou. di la jox nga jottali ko njabootu Serigne Modou Fall ka gépp madame Mbacke. madame Mbacke. Serigne Bassirou nee na kontaan na ci yow bu baax. nee na yow nit ku baax nga. ku bëgg lu baax nga. nee na jigéenam bii toog. di doom ci sëriñ Cheikh Ibrahima moom Serigne Fallou. mi ngi lay nuyu. sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu. di la ziyaare di la ziyaare. di wax ni sëriñ Cheikh Oumy. di wax ni sëriñ Cheikh Oumy. sunu xol sedd na. sëriñ bi nee na xolam sedd na. Fallou Galas. Fallou Galas. sëñ Fallou Galas Lo. sëriñ Fallou Galas Lo. yow kenn warulaa téye ba heure bi. sëriñ Bassirou Khadim Awa ba nee na kenn warulaa téye ba heure bi. ndax yow nit ñi dañuy yalwaan yalwaanu bëccëg. ndax nee nee na nit ñi dañuy yalwaan yalwaanu bëccëg. waaye yow sa yalwaan guddi la. waaye yow Lo sa yalwaan guddi la. Seydou nag. Seydou nag. ñun waa Kokki. ñun waa Kokki. ñun waa Daara ji. sëriñ bi nee na ñoom waa Daara Kokki. dinañ la porter plainte. dinañ la porter plainte. ndax sunu guddi seen guddi tay gii. tardel nga ko. tardel nga ko. ndax Gallas mii nga ndax sëriñ Fallou Gallas Lo mii nga fi téye. kon sëñ Fallou. kon sëñ Fallou. jërëjëf. sëriñ Bassirou Khane Awa Ba nee na jërëjëf. Samba Khaya. nee na. sëriñ Baara di Cheikh Samba Khaya. bërki démb gis naa la ci Mbàkke Kajoor. Serigne Bassirou nee na bërki démb di bisub sëriñ Baara bi ci Mbàkke Kajoor gis na la. nee na gis na la gis na taxawaay ca Mbàkke Kajoor. nee na yal na la yàlla dooli jàmm. léegi Abdou Sëñ bi nee na Serigne Abdou Khoudous moom Serigne Cheikhouna am Sëñ Abdou Lahat nee na. yalwaan ji. yalwaan ji jëm kooki. comme Seydou tey téye na Fallou Galaslo. te man xam naa li xew. te sëriñ Basiru xaanam aw ba xam na li xew dama bëgg nag suñ guddi tey nee na dafa bëgg nag guddi tey comme niilal nga ko comme sëriñ yu niilal nga ko te poos yi mel na ni te poos yi mel na ni mi ngi ci état de grossesse très mi ngi ci état de grossesse très avancé kon nga nga bàyyi xel Fallou Galas kon guddi tey jii nga remboursé ko te bàyyi xel Fallou Galas maa ngi sant ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp Cheikh Anta Babou maam Cheikh Anta Babou jërëjëf jërëjëf Lamine Seck Lamine Seck Khadim Mbaye xaadim mbay yéen xale yëpp yéen xale communicateur ak sinapeur yëpp sëriñ Basiiru nee na mi ngi leen di sant sëriñ bi nee na sant soppee boppam xaritam di sëriñ Siise mu sëriñ Babacar sëriñ bi nee mu mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm Seydou Seydou lu ko nit defal sëriñ bi nee na moom nga ko defal ndax amul lu dul njabootu ñoom njabootu sëñ Tuubaa gi nee na Mouhamed Sylla mii boo gisee li mu sol fonk Seydou ak bëgg Seydou ak baña a tardé bis bi moo tax lu am solo la du ak colom kon li jàppoon nag ne Seydou Serigne Bassirou nee na li nga jàppoon ba am lii ba am lii muy Serigne Fallou muy Serigne Fallou gën koo téye nga gën koo téye gën cee mooy gën gën cee dëgër kon Seydou ñoo ngi lay sant sëriñ bi nee na di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm yàlla defal la jàmm ak sutura ak sutura sëriñ Fallou Galas sëriñ Fallou Galas doo gaynde kokki ñu ngi waaj la 24 sëriñ Bassirou Khadim Awa Ba nee na ñoo ngi waaj la 24 kokki man la 24 moom nee na moom sëriñ Bassirou la vingt 24 moom ak le 25 novembre bi jàll ak le 25 novembre bi jàll ñooy samay bis ñooy ay bisam koy waajal bu baax kon seriñ bi nee na mi ngi waaj bisu kokki di la 24 décembre. tey jii nag jëloon na nee na tey jii jëloon na benn tem waaye temps bi. waaye temps bi. ak jataay bu yàgg bi. ak jataay bu yàgg bi. du fi xaj du fi xaj. xam naa dama dama ciy def code rek. sëriñ bi nee na xam nañ da ciy def code rek. ba déwén incha allah ba déwén ak jàmm incha allah. ndax Seydou daa bëggoon ma diwaan. ndax Seydou daa bëggoon tey sëriñ Basiru diwaan. diwaan nag. nee na diwaan nag. maa ngi ko gëj a def 98. mi ngi ko gëj a def 98. ca Pescara. ca Pescara Centrale. Italie Italie. Pescara Monte Silvano. nee na Pescara Monte Silvano Silvi Marina. nee na foofu la ko gëj a defee. Seydou nag. Seydou nag. daa bëggoon. daa bëggoon. ma ma biisaat ko. mu biisaat ko. waaye comme réseau waaye comme tey réseau bi dafa normalul. te mi ngi guddi. te mi ngi guddi. dañ koy log foofu rek. nee na da koy yemale foofu rek. ba beneen yoon. en tout cas sëriñ bi bëgg nañ ci yow. en tout cas sëriñ bi. Serigne Bassirou nee na bég na ci Serigne Cheikh Oumy Fall. yàlla la yàlla defal jàmm. nee na yàlla na la yàlla defal jàmm. ñu ngi waaj le 6. nee na ñu ngi waaj le 6 janvier. Dendey. Dendey. ak le 20. ak le 20. ca Touba Paypay. ca Touba Paypay. di ñaan Mbàkke. di ñaan Mbàkke. nga ñaanal sa njaboot gi. nga ñaanal sa njaboot gi. yàlla defal leen jàmm. yàlla defal leen jàmm. ñaanal Serigne Fallou Galas Lo. ñaanal Serigne Fallou Galas Lo gaynde kokki. ñaanal PDG Mouhamed Silla Serigne Saliou yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen jàmm. moo doon kaddu yi. Serigne Bassirou Khadim Awa Ba nee na loolu rek moo doon kaddu yi. mi ngi ñëpp. nee na mi ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di ñëpp. nañ tàllal Serigne bi nee na ñu tàllal Serigne Cheikh Oumy Niang. tey kaddoom waaye sëñ Cheikh soxna Fatima si transitaire sa xarit moo ngi nee ci jotaay bi. moo ne naa la yóbbante ay kàddu cant ci moom jëm ci yow. sama xarit monsieur le ministre Birima màngara waaye man fan yi président Birima màngara laa koy wax dafa yebal chef de cabinet am Bamba Wan muy sama xarit xam nga lu tax Birima sëñ Bas Birima day sama xarit suba ba tey moom mooy woo di kenn ca man muy Birima Mangara Bamba wan jërëjëf maa ngi lay sant bu baax ci teewaay bi nga teewal monsieur le ministre Birima Mangara Mohamed Silla mu sëriñ Saliou jërëjëf li nga def rëy na lool ci man bu la neexoon da yónnee waaye Xaadim ñëwal wala Cheikh Bakri mu jottalil sëriñ Cheikh Bakri sëriñ Fadlu bismillah moom sant borom aras ci moom sant borom aras mi nu booleeg Serigne Cheikh ummi tey sa tub Cheikh Bamba taman yaay sama Serigne yaay doomi Cheikh Fallou laahi doy nga ma Serigne Serigne Cheikh ummi Fallou murid saadix nga. yàqu ca géeji leer ya ba jot ca bël ba leer gaa di seex bamba tayaay jeneer ba tànneef nga yow sëriñ seexu mi yaay kamaal ba cey li def ci suufus mbàkke baari ma ne fu yaay jàmbaar juy waare di bàyyi dugub ak gerte def ko addiya sawarte yaatu lool manu gandu bodde arnu tamaynu ci barke bi asalaam nangul sunub liggéey ci daayiratu salaam léegi mbooloo mi nañu maase teewlu ma ne sëñ Cheikh ay wax dimbali leen ma yéen ñooñu ngir jëmmi sëriñ Touba na ñëpp teewlu déglu dimbali leen ma ngir jëmmi sëñ Touba Mamour jum Mamour mii toog lay wax Mamour mii Mamour Guèye Mamour Guèye borom Touba ameublement kii mooy borom Touba ameublement sëñ Bas Mamour Guèye xam naa ne sa xarit la moo tax ma la koy xamal ne moo sa ginnaaw ku bëgg meuble bu bees te confortable wala lal demal Touba ameublement sama xarit la yi ma yóbbu kër sëñ Bas Sall moom mii moo ma ko jaay. pour mu leer ne mayuñu ma ko dama koo jënd ay million kii yee a ko jaay facture bi moo ngeeg moom maa ngeeg moom leer na ay million la koy jaaye ma ñëw jënd mu wàññil ma nag ndax sama xarit la ngay Gaye jëf suñ Cheikh Mbacke jëfati noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm tey ñaan nga yàgg fi kàddu gaa ngi nii bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah, sunu bokki taalibe yu fi teew ñi ngi leen di siyaar te di leen balu xaq te di leen bal xaq tey ñaan jataay bii yàlla nañ ko teewee nag di di leen jox nuyoog sunu bokk yu fi teew rek sëriñ Basiiru wax na ko sëriñ Sidi wax na ko sama mbokk dugu doota ko jur sëñ ab sañ sëñ Modou Farmata sëñ Modou Farmata sëñ xam nga maam ma aram fukki doom ak ñaar la ñaar ñi ñooy jigéen ñi ci des góor lañu waaye maam Balla mooy caatum maam aram moom meññ li fi des sant Mbakke kon maam ji jan la waaye li ci des nag mooy fan la nu wuutee nag lañ war a lijjanti mooy jikko yu baax ak yu bon kon ñu foofu moom ñu tënk ko waaye ñu ngi leen di nuyu ci turu Sëriñ Muntaxa mi toog jotaayu Seexul Xadiim ak mboolem fu sëñ Tuubaa def dara di ko jaarale ci sunu sëriñ sëriñ Abo moom Cheikh Mahamadul Fadal eh, sëriñ Bachiru ñëw na fi ci ngoon jokkoo nañu waaye ba mu fiy ñëwee ci turu sëriñam la fi ñëwee muy sëriñ Abo moom Cheikh Mahamadul Fadal ndax moom mooy sunu jëwriñ sëriñ Abdou Fatah yorob kàddu kër gi ñoom nag laa fi teewal waaye sëñ Muntaxa moom jataay bii waaye sëñ Abo mooy kilifa jataay bi eh, Seydou kilifa boo ko amee mu baax rek war ngaa sant yàlla te wax baaxu jàmbur mënut a yàq ci baaxu kenn leen sa sëriñ dafa baax ndax nun noo bokk liñ bokk mën nañoo bañ a gisante ba li war a def li war a am am na ba noppi muy sëriñ Tuubaa baaxal na ba noppi waaye la ca des nag leneen la moom lu bokkutul lu waaye sa sëriñ baaxal am na lu ma wax am na lu mu la wax pas-pas la nag santu la daf laa jaj nga gën a góorgóorlu noonu nag amul lu yow muy sëriñ kenn du la gën waaye yow da wéet fi nga ne ndax danga nga tudd sa baay tudd sa yaay tudd ñi nga bokkal ndey ak baay ñu tuddee la Cheikh ñu tuddee la Seydou Nourou Tall sa mag ñu tuddee ko keneen kon yow fa nga nekkoon la la fa jële wax nga ko fii bi nga taxawee léegi muy Sëriñ Tuubaa kon nag moo tax duñ la baax man nag sama xarit nga danoo bokk sëriñ man may sëñ bëgg na la maa ngi nuyu bokk yu fi teew yëpp nu yób sëñ bi bii bisama kii nag ndax dama ko yërëm bi may am bi may ànd ak moom booba yëpp xewul booba yi yëpp xewul muy ànd ak sama jawriñ di tudd Modou Ba maa leen di jox njëkk maa ko jox njëkk rajo te ne ko kaay wax nangam muy jàng talabta rasulullah mm-hmm. man kii man ni ma ko xamee ñiñ ko jur sax xamee wuñ noonu talabta rasulullahi kon sunu àndee ci mbir mii ba sëñ ab sëñ ci ñëw fii tey sëñ Fallou laa bëgg nga xam ko lam ma wax nag dégg naa ko keroog talaata la ma woo ne ma kañ ngay dem ca bis ba ma ne ko maa ngi waaj bi mu dikkee ci su jokkoo nañu bi muy départ kër ga waaye daane ma su ma jullee timis pare lay ñëw fii ñëw na fii loolee nag ku ko am dangay xam li nga am lu mu doon mhm. waaye kii ku jikkoom baax la sëñ bi xamul lu mu bañ échec la bañ échec da échec moom dafa bëgg lépp baax ñu ngi sant ñëpp ci turu sëriñ bi nit ki amul lu boppam te Seydou dafa woote ngir sëñ Fallu ngeen fekk si ko ñun nag ki ñuy àndal muy sëñ Fallu mi tax ngeen woy si wóolu nañ ko noonu mhm. na faj suñu aajo rek kenn ku ne nag tudd nañ la bu dee kii nu ko tuddee muy bàyyam sëñ moom sëñ Moxtaar mhm. man dama ko la fréquenté ndax man dama bëgg murit te bàyyi murit la dégg naa li nga wax di tuyu Cheikh Mamadou Bachir mii bu baaxut ñu laaj ko ko moom mu baax na waaye xamut ci bàyyam lu bari suñu Saliou la xam te Saliou da Mbacké dafa baax kon nag jërëjëf Serigne Bassirou man sa euh, ni nga may wooye rek laa mën a doon ci yow sa bàyyi dama koo miin waaye daf ma daa wax naan sama bàyyi Serigne Fallou la tudd kon loo def war nga koo def li ci des nag mooy jamono dafa soppeeku ñu yaakaar na dafa am yu xew te fekk na li xew mu xewut xewutoon li xew mooy mag ñi liñ fi bàyyi moom la war a suuxat ba mu sax ñu jàpp ko te téye ko te xam ne loola matériel la waaye les yëpp du matériel sant gone yëpp nag suñ fallu euh, sant nanu ni li ne rek la mën a wane di nuyu gone yëpp bàyyiwunu kenn euh, am na nag bu ñu limee danaa juum waaye ku mel ne Mohamed Sylla mii nga wax man sama xarita heure guddi la may woo te bu ma wooyee danaa xam ne woo na ma kon nag ñu ngi koy gërëm di gërëm nag mbooleem ku jëf ci bis bi Seydul ku ko jox ab dërëm rek wax na ma ko sama xarit la lépp luñ ko ku ko jëfal tam wax na ma ko waaye nag jëmmi Serigne tubaa tax ngeen jëfal ko ko mi ngeen yaakaar boo ko yaakaar ko ak Serigne Fallou mi yaakaar te fee mu féetee nag kër Cheikh Mamadou Bachir noonu dañ ko amel njukkal keroog bi mu demee ci Mamour jënd fa ñetti salon benn bu mu jëndee ko un million nangam di ko yóbbu man la woo ne la ne ma sëñ bi xoolal lii ndax rafet na sama rongo ñu tuuru ma xam ne kenn maa ko war a jëf te jëfal na ma ko keneen noonu keneen noonu kon yooyu jërut xeeb nit ki day am kilifa. la ci dolli ko nag mooy noonu ñii noo fi des mag ñi kenn nekkatu fi de doomi suñ tuba nekkatu fi sëñ suñ tuba mun bokk fi te suñuy maam la woon ak suñuy ak suñuy maam suñuy baay la woon ak suñuy baay noo fi des nun na ngeen leen xam loolu waaye mun noo ñàkk bañ a ànd ginnaaw duñu leen sànni duñu leen wàcc du ngeen sànni du ngeen wàcc ànd rek lañ mën a def waaye nañ yërëmante nag te wóoloonte te bañ a waxante lu ban te bañ koo defante sëñ bi bëggut loolu te sëñ bi ñu àndal mat na lim doon nan sax ba mat li ñu doon rek nan góor góorlu nag ci jaamu yàlla sëñ bi jaamu yàlla la digle ban ko joxe suñu bopp danoo bàyyi suñu ngor jaamu ji leen yàlla liggéey lan wax leneen lu ci sëñ Tuubaa am dara amul lépp suñ bopp la yam lañ koy jox ci addee bariwut te liggéey bi bariwul tuuti lañ koy mosal rek li des ñu def ko suñu bopp kër yu rafet yéeg lépp dafa am génn góor barki moom mu ne ma sëñ bi xanaa xamoon ne bàmmeel ay koront kon nañ góorgóorlu te xam ne foofee am na lu ñu soxla lan fa soxla nañ ko amee nag mooy pas-pas te nangoo ñaq te jox suñ tubaa ndax fi ni jaamu yàlla gi mënuñu koo matal ñu ngi nii fi ni heure bi am na ñoo xam ne julee guñ gee tagee tagee nag du jàll moom ndax mën naa dem ba fajar ndax leen ndax gudd na waaye nag nan xam ne ginnaaw mun ma matal loolu nañ fas yéene wuti sëriñ te yaakaar leen te yàlla tax waaye boobu ñoo kañuy jox suñu bopp bu mu tax mhm. na sëñ Tuubaa tax bu taxee nag la ci des nag nañu koy dimbale ab sëriñ da teew ci moom di joxe addiya te jàpp ko ngir yàlla li ci des nag moom ay naxtaan mu cee ne la ci sax ñoo bokk réew mii te ginnaaw réew mi duñ ko génn mhm. il faut ñu jëfante lu baax ku ci jëf daal ñoo ko ñoon nga ko jëfal jëfaloo ko sëy kañ ko jëfal nag mooy Cheikh Mamadou Bachir Cheikh Bachir mooy noonu ndax noonu amul lu dul ñoom ñun amul lu dul moom moom daal wax na ma ne ma sëñ bi lu mu am bokk na ko man lu mu am jox na ko man nag lu ma am danaa ko bokk ak moom foofu la asgor mën a kon nag loolu yàlla nañ ci dugg Cheikh Mamadou Bachir Seydou Ngoo sëñ sëñ Fallou Garas Lo Seydou Ngoo moom mot mot si laa Seydou Ngoo nit ki nag lu mu am nga jàpp ko day mel ne moom nga jàpp nun nag sëñ bi nag ci nun waaye fu nu desee la ngeen war ci nun da ngeen ko def nit nag amul lu boppam sëñ Blanc nee na sant ko la deful dara xarab ko la te ni ngeen bëgg seen tànk seen xel yi bëgg ko kon nag ñu waaye bu leen nu topp de na ngeen xam ne sëñ Tuubaa nekkatu fi doom ñoo génne fi des dañoo yàgg yàgg naa ko jàmm kon nag ginnaaw yàlla naa jàmm na xam ne nun mën am na lu mënul am na lu dul def ginnaaw doon ko def nag mënuñu ko ñee lañ mën a mënuñu ko kon nag ginnaaw noo mën a ànd nag ñu rusante te yéerante yàlla tax bu ñu ko defee lépp mën naa baax asalaamaaleykum wa rahmatulah bismillah ñaanal amin di jël teew ma ay enveloppe ah teraanga ji lan la yëkkati ma xool teraanga jaa ngi nii sëñ bi kii sargal Cheikh Fall Ramata communicateur kii nag mooy yaayam moo waral lépp kii mooy géwalu Mbakol yaayam waa Mbakol xam nañ ko mais. nee eh, eh, mi ngi noonu yaayam. waa déglu li mu bëgg a def. bàyyi ko chef bàyyi ko chef bàyyi ko chef bàyyi ko. toogal waa toogal. bas jógal noonu tuuti toogal bas. xoolal. nee nga ji. nee garam bu bii ci la. ana garam bu bi ak lan. nii la ñuy sargale mag. nee teraanga ji. lii garaam bu la ak mbasin ci la bokk ne enveloppe bi yaa ma ko joxoon muy ñaar fukki junni te yaatal sa enveloppe ma ñëw ak yow nii la ñu sargale mag ne lii ñaar fukki junni la maa ko ci dolli ne moo war a ñëwaat mbu mii ma la mujj a jox faal ramata ne mbu mii ma ñaw xaw ma sa miséer ne moo tax ma ñaw ko ne bee yaa koy ñawlu ñaar fukki junni tableau bii nag dangaa xam ne sa yaay nga gën a bëgg ci àdduna moo tax ma dendal la ak sa yaay nii Cheikh Fall teraanga ji nag yaa ko moom ndax teraanga ji mën naa ko nangu ngay as di nit ku baax Seydou waxal na boppam ni fi lan la fekk Thiès te yow amoo kudul Fatick Marème jooju ngay wax fat si la libaas jor si la libaas xarit daaru xarit mbar yow mbaakol nga am say maam rek lañ woon ak Cheikhul Khadim ki ne cun yàgg na koo wax. sa xol daa sedd waxal. nee seex. sama xol sedd na. sama defal na ma loo xam ni lii dootu fay te lii ma Seydou defal man de émotion jàpp na ma ba mënumaa wax dara Seydou nag ba ma koy bëgg di ko sopp ndax jomam ak ngoram booba séenuwuma ci woon lii waaye Seydou nag yal na la yàlla dooleel sama xol sedd na daal ba mënumaa wax seet. Cheikh tey mën a wax ñun ñi say rakk ñooy wax alaaji Seydou na nga xam ne Cheikh Fall sama nijaay kontaan na ay bokkam kontaan na waaye tous les communicateurs tey wan nga leen xam ne kenn dootu ko fàtte moom Cheikh Moussa Fallilou sëñ Xaadim Mbàkke mi nga xam ni doomi sëñ Muudu bu sa jàng la baaxoon lool yir donga yi jàpp donga yi alaaji Seydou Lone mi dama koy fàttaliku jàng alxuraan ju bari la ñu def ak ñaanal ko yàlla doole ay leeram Seydou mi ko am kóllëre la ndax sëñ Xaadim da koo jàppoon fonkoon ko daan ko teral daan ko sagal mu ni bis bii day fàttaliku sëñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Mourou Boussa Dieng góor moo tax bis bii mu xam ne sëñ Mourou Boussa Dieng baayam la gën a bëgg madame mbake mu ni lii dala koy jébbal yaag soxna ummi ak soxna waalo ak bokk yi fi ne kon bàyyi Xaadim Dia kii yi sëñ Fallu la nun ay gone lañ dañ koy fekk ci Alaaji Baara lañ ko xamee muy ku liggéeyal sëñ Fallu ku bëgg njaboot sañ Fallu loolu kon ñu ngi nii muy xaadim jamoo ko moom ñu jox ko ko muy jàmbaar léegi nag bay di sëñ mu sañ Fallu ana nday ndumbaan waaw na am ku ko nangul ku ne mën na ko nangu Pape Maguette mën na koo nangu nday ndumbaan a ngi nii di ñëw sunu yaay nday ndumbaan yaa koy nangul alaaji bay di sëy alaaji bay di sëy mu sëñ fàllu boole nañ ko xaritam alaaji sëy du jërëjëf ma baqiya sëñ Mudu Muxtaar mu si Awa Balla kan moo koy nangu ko xamoon maa ko daan ubbil ci cérémonie yi sëñ Mudu mu sëñ Muxtaar mu si Awa Balla kii maa ko xamoon moo daa wax si Ahmad Cheikh Ahmad Bamba waaw fekk naa ko fu ne ko détail mu sëñ Touba mu yox danaan joxal jàmmi ko waaw sëñ Moudou mu sëñ si xaw Balla waaye ku koy nangu alaaji Cheikh Ka ana ndey ka ka nga koo nangu alaaji Cheikh Ka ka man nga koo nangu alaaji Cheikh Ka léegi Ka moom alaaji Cheikh Ka ñëw ànd ak mu bari jërëjëf kon ndey ka yaa koy nangu alaaji Cheikh Ka Seydou lii nga def bi bind la boo xam ne ñëpp la ci war a roy